<laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di béggee di leen ziar leen joxati seen wàccu waaye na di leen wax ngeen baal ma wax dëgg yàlla baal naa baal leen ma àq man moom man moom baal naa leen man moom personnellement man baal naa leen yéen ñëpp ñu teew kay ati ati ati ati at waaye nag question est-ce que baal ngeen ah baal baal leen ma de waa parti au pouvoir ak waa opposition góor jigéen mag ak ndaw population ak internaute yéen ñëpp daal maa ngi leen di baal wàq leen wax ngeen baal ma Euh, yal nañu yàlla ba boole baal yal nañu ko teewee at yu bari nag dund 111 ans zéro ordonnance wax dëgg yàlla waaw man maa mën a tooñ. te korte dégg naa korte na ko baalu àqu te baalu wut la <laughs> loolu rek dossier la baalu àqu korte te baaluñu la. loolu méttee gi noonu waaye di ngeen ma baal man samay nit ngeen waaye am na ci ñoo xamante ne nag fekk naa ne wuñ fonde duñ ma baal mais nag garaawul ndax talax la réew meeg rakkam rakkam jeeg rukkum rukkum jeeg lay lay bàyyi sonko ji man xëri ci lay was lu àq di ngeen naa ne fonde ci waja iran ak wa baati man gaay yi gars yi nag tey euh, dama indi benn débat bu ndaw waxtaane ko comme démb euh, c'est la fête de Korité wax dëgg yàlla koroñool le na Korité gi koroñool le na euh, wax dëgg yàlla sunu bàyyi wala saa bàyyi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu demee foofee ca euh, grande mosquée de Dakar wax dëgg yàlla julli ji après bi mu jullee ba julli gi sëlmal wax dëgg yàlla booba la Korité ga jeex wax dëgg yàlla xam ngeen ni ngeen am président président bu mel ni biir grand mosquée coo bari wax bari rek waaye ku ne xam na kii sa bàyyi dama ni président bu mel ni biir grand mosquée démb bu gisoo ni mu leere xanaa waaye nag ci biir loolu gars yi damaa dégg ay polémique Bassirou Diomaye fay ni muy jullee baaxul kii gëmul dara salafiste la nangam c'est que c'est-à-dire euh, kon yéen yéen a ngi wax ba tey euh, te bari na man leer na ma ni ñi naan Bassirou Diomaye fay nii muy jullee baaxul mënuñoo sax sangu farat maanaam mënuñoo sax sangu set maanaam di di xool naan Bassirou Diomaye Faye ni mu jullee baax la ni mu jullee baaxul maanaam ni mu taxawee baax ni mu taxawee baaxul maanaam ñu koy wax man leer na ma ni xaaj bi ak quatre-vingt-dix pour cent mënuñoo sangu farata problème boobu dañ koo am problème boobu dañ koo am. léegi ñoom neen ñoom ñooy corriger Bassirou Diomaye maanaam jël nañ place u yàlla talax laxe nan rakkam rakkam yi place bi yàlla war non man daal xamul tax yàlla daal gars yi man daal lu tax gars yi tuutal yàlla ci réew mi jaaxal na ma maanaam place bi yàlla war a jël nit ñee ko jël léegi ñooy juger ñooy àtte ci yan raison maanaam place u yàlla la nit ñi jël di àtte hmm? yow yaay yàlla yow banaat basiru Diomaye Diakhar Faye julleem gi baaxul ni mu taxawee baaxul ab salafiste la <laughs> bi réew tang. tàng commencé laaj mais ba tey man ba tey ba tey non sérieusement man xawma lan mooy salafis mais ni ma déggee ak li ma expliquer, xam nga wax ju teguwul manam man man dal ni ma ko déggee daal wax dëgg euh man comprendre ma parce que salafis man ah, ci nin ma expliquer, parce que man xawmako man mo salafis man, koy dogo dégg. ni may doog a ak trouble de l'ordre public euh, euh, corruption de la jeunesse ak yooyu yëpp ni ma ko doog a dégg laay doog a déggee euh, salafis man yu bari yu bari ci événement Ousmane Sonko yi laa ko xam ay salafis ah waaye bu leen umpalee ñun ñëpp xam nañ ne L80 <laughs> offensement de chef de l'État ah déet ah déet fi mu ne nii moom ku ne sa avocat bopp ndax nit ñëpp a mokkal li Ousmane Sonko dégg ubbi na yoon wi ñëpp a mokkal. fii Sénégal ku taxaw ci réew mi di xam ma li yoon di bañ ak li muy tere non ku ko wax jamono jun toll nag moom boo bëggee dégg dëgg mooy ñi nga xamante ne daaw ñu am connexion ñooñu dong laa xam ni peut-être xamuñu li yoon wax kon le mot salafiste nee nañu mooy ki nga xam ni gëmul sëriñ gëmul sëriñ gëmul sëriñ quoi waa damay laaj ma ni sëriñ si euh, ba xam gëm leen force la force yow yàlla bu la bindee nga juddu yow da ngaa war a gëm sëriñ far force question la bëgg naa ko bëgg naa tontu bi ci commentaire yi maanaam yàlla bu la bindee yow da ngaa war a gëm sëriñ far force ci wajaa iran wala wa baati man far force ci obligatoire nga nga gëm sëriñ ci obligatoire <laughs> question la ba pare ginnaaw bu ma leen posé question boobu ba pare damay talax laxe laxe nag fen leen fen loo leen talax laxe laxe laxe laxe laa wax de waxuma talax laxe talax laxe laxe laxe fen loo leen ci wajaa iran ak wa baati man bàyyi Bassirou Diomaye Faye salafiste la Ousmane Sonko ab salafiste da te moom chaque jour moom fàng dàng xam nga moom bokkut ak Baye Bassirou ndax ba Bassirou mën naa ne moom <laughs> Baye Ousmane moom boo bëggee dégg dégg moom làmmiñ du lekk moroom ma da ñorul <laughs> heure bu ne ab mu xëy dem seeti sëñ bi ñu <laughs> ah, moom day defante Ousmane Sonko non day defante bu xëyee ni ko salafiste la mu xëy yóbbu dem ci sëñ bi ni ko sëñ bi dolli ñaani <laughs> doolul xuluwa yi xuluwa yi xuluwa yi may xëpp <laughs> barke yowmal xuloo jël bazar dama ne Bassirou Diomaye Faye ab salafiste la ak du salafiste loolu euh, da ngeen a tuuti ci juge ko waaw doomu aadama bu ne nag am nga ku la gëm ka la saf non nit ku ne am nga ku la gëm la la saf bu fekkee dañuy sukkandiku ci waxu yàlla ak yonant yàlla nee na man maa yàlla ndax gëm ngeen ñu ne ko waa gëm nañ la gëm ngeen ni ku dee euh, yowmal xiyaam ak yooyu am na mu ni waaw yonent bii euh, maa ko sàkk topp leen ko ci côté musulman laa quoi wàllu wee waxuma ko côté musulman laa parce que y a deux nous sommes tous des croyants parce que nag gis nga di domaine bi bu leen ma ci dugal parce que ñaari boor yëpp laa man bu dee bible dama koy gérer bu dee coran dama koy gere kon yéen maanaam da ngeen a xamut li xew. manam place yalla kum yam ngeen bëgg jël ah, lu ta amul won ci yalla yenen le prophète mohammed han ah, mi nga xamni moy gën gi mbindef yalla neena ko luma bind ya ci gën c'est que mom mo togul place yalla waxuma lak ñun ñi nga xamni sa yi <laughs> ñun ñi nga xamni ñi ci jor gi no sa ci au fond de l'afrique ñun ako ñoo sori bu no xol suñu digënté yalla ni <laughs> ako ñoo sori ma ngi jéggal de ako ñoo sori dama ni yalla fa la dëkk nga fan la dëkk xam nga sénégalais day maîtrise day wax lu mu maîtrisé wul ay yàlla eh, waxu yàlla bàyyi leen ko ndax yéen seen problème mooy da ngeen li ngeen yéen ay jàngoo leen lu bari ñu koy wax jànguñu ñu koy wax jànguñu wax dëgg yàlla maa maay lu ñu koy wax jànguñu ay salafis salafis salafis salafis salafis luy salafis salafis salafis man daal la moo salafis salafis doomi sala salafis sala fils doomi Sala Sala jurul basiru Diomaye fay la la ngi dof dof lu noonu ok gars euh buñ duggé fofu tay nak tay mom moom wax dëgg tay mom moom yëfu ko ci korta lañ duggé yalla yonent bi alquran ah, ah ak señ bi ak señ bi oui señ bi señ <laughs> bi mom ah señ bi ak señ bi señ bi ci la yalla yonent bi alquran ak señ bi xam fi yalla bañ na bu mu ñu bindee sànni ci àdduna danañu làkkum kum wala ya da yomb léegi yéen ngeen ko nono contrôler kum wala ya diine xam nga lool nak wax dëgg yàlla tooñ la yàlla ma bind bindam nee lakum diinu kum wala ya diine yeen ngeen ko nono contrôler kum wala ya contrôler wala xam nga li moy problème bi moo tax gis nga yow mal xiyam ni man def buma ma gisee sénégalais damay tégg fu lay dem taxaw ndax xam ni ñom seen dossier rek la ko du yomb seen dossier surtout bu len baye Ousmane Sonko djéggalul ah way dafa ngi ci membre way waaye neen dafa ciono baal len maa encore une fois ah. jéggalu de mané euh wax deug yalla xam nga korité buñ ci djugé da nga war a eh, génn lan murum koor dagi bay imam bay imam yi imam yi ñu ngi doon réclamer seen murum koor ndax neen bàyyi aali seen dalee tamalon weer wu na 50000 bu koor dikkee manam bu koor dikkee dañ leen jox 50 50 pour murum koor ak tabaski ak yoyu waaw léegi nag nee ren gisuñu seen seen cinquante seeni cinquante la ñuy laaj <laughs> imaam yi képp nañ bës bi nag imaam na ngeen def ak coono am ngeen jàmm ah imaam yi laaj cinquante cinquante yi laa wax de non imaam yi nga xam ne ñoom ñooy laaj seeni cinquante cinquante fukk fukk yi cinquante mille cinquante mille ndekete budget budget Sénégal bépp Baye Macky jox na ko imaam yi cinquante mille cinquante mille ah ren nag Baye Bassirou Diomaye Faye moo toog. ngeen ne yaay da ngeen di laaj seen 50000 ah wax deug yalla diine de lu ci way def lu gën la ci diine ci diine waye nak <laughs> Baye Bassirou jamaay fay neewon na liggey de <laughs> Baye Bassirou Diomaye Faye nee na travail nu neena ñu liggey parce que nak bo bëggee deug deug Baye Bassirou jamaay fay loolu góoma góoma lu muy def la de parce que nak ñaw dembu tay ngay laaj 50000 mille ñaw démb tey ngay laaj 50000 mille Bassirou Diomaye Faye li mu daj ci kaso bi degup au <laughs> ko que ñu yërëm ko lijjanti ko mu gën déedéet ab salafist la gëmul dara day yàq réew <laughs> mi Ousmane Sonko ci kassa bi ñu ne salafist la gëmul dara day yàq réew mi ñu ne ko déeta way ñu ne ko jihadist nga man ab mo mo jihadist ci jowal Ousmane Sonko la ko al alkayda nan ko yatakaddam nga ni bàyyi jumaay fay ko ni len ñom ay jihadist lañ ay israéliens lañ ay palestiniens wa léegi ñooñu tay ñoo yor ngor gi tay nga leen laaj sukur koor sukur koor 50000 xana sukur rek na wax dëgg nak nag suukaru koor 50000 ah yow met la fa nga ci même rew de waye nak bay aale leen ko tamal de <laughs> su lu póodaloo <laughs> imam luppe <laughs> damaa xam ni da ciow lay metti di tang di talax laxe di rukum rukumi Sénégal métti Ousmane Sonko nekk ci digg ci digg tuuxi duuna ñu koy yàq di ko def lu ne yàlla di leen wan boppam ci ay misaal weer wu dee Ousmane Sonko turandoo weer wu dee Ousmane Sonko turandoo te ba coow lay métti laa wax de ba coow lay métti ñu naan Ousmane Sonko 10 ans de prison 15 ans de prison Bassirou Diomaye Faye moom kenn limaale ko moom moom génn moom yaakaaroon naa ne yow mal xuloo jël basar la ñuy taje ji rek <laughs> Bassirou mu sëñ Bassirou kenn limaale génn gi moom Ousmane daal lañ doon dóor ay pen Bassirou moom xaw ma pet pet la woon xaw ma lu mu doonoon kenn limaale wu ko man damaa joxante woon ak moom rendez-vous sax yow mal xiyaam yàlla xam na ko pour man yow mal xiyaam rek laay gis Bassirou Diomaye Faye ndekete li yàlla di def moment boobu réew mi métti tàng doomu aadama yi faatu weer wu dee yàlla wan leen boppam yéen imaam yi imaam yi yéen de weer wu dee yàlla wan leen boppam nga gis ku jur doomam tudde Ousmane Sonko te ba muy métti laa la wax de waxuma waxuma waxuma léegi de xam nga léegi ku tudde à partir de man da fan yi ku fi tudde doo non am na turandoo yoo xamante ne duñ ko nangu nag désormais dama ni turandoo yi yu mujj yi bàyyi leen ko de. wut leen ku ngeen tudde seeni dom doom pour l'instant waye nak turandoo yi ma reconnaître tay gërëm seeni nday ak seeni i moy mooy yi nga xamanteni à l'époque lay met di tang bakane yi rot weer wu dee Ousmane Sonko turandoo weer wu dee Ousmane Sonko turandoo Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye joxuñu ñoo joxuñu ñu murum koor di leen ko jox yeen ñi doon naan ñaw non ñun liñ fi yor wul de. liñ fi yor bariwul yaakaar naa ñu ngi xaw ma sett turandoo yoo xamante ne ca ba xeex bay tàng la woon te dama leen a fàttee sax xottil bàyyi Ousmane da leen a fàttee xottil ci korte gi da leen a fàttee xottil de <laughs> muurum ko liñ si luñ si li ñuy siggee foofu la jëm de te <laughs> liir yooyu ñu tuddee à l'époque <laughs> ca ba coow lay métti liñ fi yor daal mu war a doon muurum koor ñoo ñoo koy engagé bu soobee yàlla muurum koor moom xam naa ne <tsk> ah liggéeyi de maam xaw ma ana xëy xëy dóori waar ba heure jot jot nga jiite ji <laughs> imaam daa war a am salaire ah loolu nag moom duñ war a toogaat négocier ko waaye imaam de lu ko waaye defal baax na imaam ah imaam lu ko waaye defal baax na de waaye imaam de bu naree am salaire moom war na xoolaat dossier am de imaam bu am salaire yeneen kenn daaw ko fay amul amul woon salaire yeneen da daan da ba da daan da daan bay bëgg a da daan xare badar ba yaram wi siit laa lay wax nii mu taxaw gaa yi wër ko mu nodd nga dégg bilaal xaaj tay yëfi yalla rek tay tay yëfi yalla rek te yalla la wote de waaw hmm? yenent daan ni bilal bismillah bilal nodd nga deg nodduk bilal ga hmm yifari nga xamni yalla yàlla bëggoon na leen dimbali sax ku deg bilal di nodd da ngay da ngay da ngay daanuy leer la daanu jël gi kii ya, daanu jël yi gars daanu ni fofu la fofu la commencé ñoo ñoom naaree njëkk daanu fi deg bilal yu xur rek ndeysaan bu rek nga deg naari commencé daanu jël yéefar lu gara lu may wax ni oustaz Ira sax du loko wax oustaz Modou Fall du loko wax parce que dimension la c'était à l'époque ku jangul ci histoire mago la netali hmm kon yeen imam yi euh, wax dëgg yalla ngeen di ma roy yenen rek ndax yenen daan door war de daan door war yi daan door war de daan liggey xare ba dar hmm? defar ay andu defar ay bagage and euh, ponkali sahaba yi ñu dem jaay ah jóge màkk di jaayi dina li ma lay wax ni seetal seet yi seetal ay siècle la li ma wax nii nekkul sax ci alxuraan bind li ma lay wax nii nekkul sax ci téere bi da jaay commerçant la woon da doon jaay ay commerçant lañu woon jamonoy commerce moo am commerce moo am yab gëlémi ay àndu ay wurus ngalam yooyu noonu di ko jaay bu julli jotee ñu jiite waaye imaam ah waaw waaye nag imaam lu ko waaye defal baax na. ba tax na euh, sunu baay imam de grande mosquée de dakar wax deug yalla mom man na kanja man na imam may jégul de imam ba duma soppi kanja nak damay kaf ak yow rek ndax nak imam de naqari dara de mag mag bur mak bur la te dégg naa waaje ndaw say way nan goné bu bëggee gudd fan day ci cëram ñoko mag gesul goné gi geesul xale yi eyéey eh, eh, mbaras waaw woyu yàgg na woyu am njariñ a ngi noonu xuri daanu na ci teen waaye xuri <laughs> lu xuri def ba daanu ci teen gone day jox cër mag ñi ba tax na damaa bëgg waxtaan ak imam Grand Mosquée de Dakar nag ci fair-play man sama waaye nga sama papa nga wax dëgg yàlla jamonoy dégg naa la nga waxoon jamonoy ah imam man nga kanja man nga maafe hmm, hmm. fii xew nii ku ci dee safara nga jëmaa ah. du jihaat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 kenn ku nekk di dóor ci si dënnam dënnam man man man man man rek mooy taxaw te am dem kon dimbali nit ñi lu ñu lu mu doon nañu équipe équipe amul rek wax équipe gouverner équipe ki nga xamee ne moom da yàlla dogal mu jiitu ñëpp am na lu yàlla may mu am loo sañ-sañ boo xam ne moo ko am waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënoon ñëpp yàlla daf ko waxoon ne wa yàlla defal ko lu mu defalul kenn waaye dafa waxoon yonent bi ne ko deel jékkee-jékki am xelaat nga waxtaan ceeg nit ñi la seen kii moo ko toppee moo ko toppee vidéo bi une heure de am bàyyi imaam mën na kànja mën na maafe waaw dama ne changement de changement de imaam nag parce que yëpp mise en jour nañ ko imaam bi dañ war a changer de <laughs> wuyu ma le imam de grande mosquée wax dëgg yàlla imam yow da wàcc de yow sa mandat jeex na <laughs> Oke, ke yawmal xulóojil bazar dama ni imam mi daa war a wàcc de <laughs> Bassirou Gawal Faye gaawal lancer demande imam yi no imam bi mandaam jeex na man na kànja man na maafe lii moo tax gis nga politique yéen ñi nekk ci diine ji ak nitu yàlla yi da ngeen a war a génn ci politique ni ngeen mando ba bu ñuy xotal doomu aadama yi du ngeen wax du ngeen baat ndax ngeen doon laaj barki noonu ngeen war a maandoo ci politique ba bu ngeen ci ñaaw bàyyi imaam maa ngi tuub de i imaam imaam laay waxal ma soppi kaña imaam yi imaam imaam defal la neex oh my god. what did it do? it is small smoky. God have mercy upon us. in the third India. in the third India. Èdèkẹ́ in bíara. Èdèkẹ́ di bíara. It is small table. God have mercy upon us. Èdèkẹ́ di bíara. 这个零件。